majorité bi am na ñu bëgg ñu ñu reporter ñu ngi jiiñ ku nekk naan diw la moo nekk ci ginnaaw diw a nekk ci ginnaaw diw a nekk ci gannaaw may wax ne ñun ñaan lañu nekk ci ginnaaw am na loo xam nañ ko ci génnee parce que mënu ci bokk. kan président de la république. parce que la mu def euh, moom dafa am lu mu waat waat ne dafay veiller au bon fonctionnement des institutions benn ñaar ci doxalinam. ci doxalinam amul lenn lu luñ ko mën a sikk tey jël na décret fixer la date convoquer les élections def lépp toutes les dispositions ont été prises pour que élection bi am à bonne date kon moom lañ ko ci génnee la ka la ka la mu waroon a def yépp def na ko gannaaw nag ay ay ay ay ay tuuma yu ñuy tegee may mais dañ koy analyser ñi nekk ci biir xam nga damay wax toujours may mun a politique Sénégal dafa weesu fu ñuy naxantee dëgg gi dañ koy wax dafa am euh, tey euh, dëgg la Amadou Ba dafa am nu mu mel dafa nekk candidat jiitawul parti jiitawul parti du ma moo créé parti lu ñuy wax du APR de ba ñuy defar parti bi fee tewewu ko ci dafa dafa dabe ñoo bokk ci parti bi président parti bi nekk Moustapha Niass ki yore secrétariat exécutif permanent di Benno Bokk Yaakaar nekk euh, ki yore parti bi di Macky Sall moo yore président de la coalition ki jiite secrétariat exécutif permanent di Moustapha Niass Amadou Ba jiitewul dara lenn rek la jiite directoire de campagne yaakaar naa ne gannaaw ëllëg lay def directoire de campagne am donc Amadou Ba amul appareil amul ay nit yoo xam dañu ñëw mu def langue ak ñoom di politique amul donc ñu bëri dañuy ñëw puisque mi ngi mi ngi liggéey ak président coalition bi pour defar euh, directoire de campagne am directoire bi publier guñu ko ku ci nekk yaakaar ne boolewuñ la ci euh, kéwél euh, bëy balaa nga koy rey dégg baatam kenn ku nekk bëgg bokk ñi bëgg bokk jàpp ne dañ leen ci génnee ñuy wax nañu reporté et cetera et cetera. ñoo jiite am loolu am na ci loolu am na ci. Mhm. am na ci am na ci it ci biir nañuy waxante dëgg ñoo xam ne ne bii que gis nañu ne bokk boolewuñ leen te amul kenn ku wax ne boole nañ ma wala boolewuñ ma parce que ñu ngi defar affaire bi dafa sotteegul su Amadou Ba nekkoon président wu parti mën na ñëw taxaw ne lii laay def mais président parti bi mooy Macky Sall moo defar parti bi parti bi nekkoon fi donc am na lu bëri balaa nga ci mën a def dara il faut nga waxtaan ci ak moom ba pare donc ñi nga xam ne bi gisaguñ ci seen bopp ñu ngi xool koo ci ne sa bët bi de ba dafa xonq yow sa bët bi lu ci nekk mu ne ah man maa ngi dem sax traversé seeti kaneen parce que am na ñeneen ñu bokkoon ci ñun dem loolu lu ñu wax dañuy maroode ñoom ñëpp nag pour ñu bëgg boole seen bopp dañuy wax loolu yëpp may wax ne loolu danger la xam nga luy danger bi. Macky Sall mooy président jusqu'au 2 avril parce que defe naa premier avril wala 2 avril lay président bu bees bi fallait prêter serment su 2 avril weesoo Macky Sall n'est plus président de la République et il ne peut plus être président de la République donc suñuy fexee ba nit ñi déggoo pour dàq élection yi assemblée la ñuy jaar ay maguy politique lay doon ay waxtaanu politicien pour reporter élection après day am problème de légitimité. Macky day am problème de légitimité. day am problème de légitimité parce que Macky Sall il est élu pour cinq ans su cinq ans yi jeexee dootul nekkati président kon sabar gu tas la day mel ni tulleeg màlle kenn ku nekk naan mënoo ko mënoo ko nekk day indi trouble ci dëkk bi dëkk bi ak ñi ñu wër la ma koy wax geñook safara moo ñu wër dëkk yi wër Sénégal yépp ñu ngi ci ay problème kenn xamul fi mu jëm. ñun ñu ngi xeex gis nga armée bi nuñ ko yokkee armee Sénégal li mu am tey ci ngànnaay masu ko am ci àdduna soo demee ci frontière yi garsi gendarme yaa nga fa soldaar yaa nga fa di veiller ci frontière bi pour ñi nga xam ne ne bi ñu ma lay wax dafa am gis nga ko gis naa ko dañu dem gis ay sëriñ ay kilifa ay kilifa diine yu gaañu am ay nit ñu leen topp ñu nekk ci ay xabru dañu toj xabru bi génne leen foo ci xabru bi sulli leen dem suul leen ci armeel parce que nee ñu nit du nekk ci xabru ñooñu ñu ngi ci yoon pour ñëw Sénégal kon suñu toogee ba ñu toog amatuñu président président bi amatul amatul légitimité dañuy am ñooñu lu ñu war a mën a wax ëllëg donc les enjeux ce sont les enjeux de la République les enjeux ce sont les enjeux de notre modèle républicain les enjeux ce sont les enjeux de la stabilité de notre pays de notre modèle social de notre modèle de notre perspective économique loolu boole ci yàlla may ñu ñu toog jamono joo xam ne ne bi dëkk yi am pétrole ak gaz yëpp surtout gaz dañ leen di wax des pays qui ont la malédiction des hydrocarbures dëkk yi ko am yëpp dañu am ay problème yàlla may nañu ñu am ko te ba léegi am nañu ay problème waaye ba tey contrôler nañ ko Euh, lépp nga ci loxo président de la république parce que opposition bi certains mun nañu agité wu di wax waxu waxu report mais majorité bi bu ñu leen bëggee tendre la main wala di jéem a créer des espaces de de de, de discussion est-ce que nekk ñu di créer porox ndoll avec tout que ça peut nous gis naa keroog euh, les majors pétroliers di annoncer euh, le début de l'exploration l'exploitation du gaz et du pétrole pour le deuxième semestre de mille vingt 2024 alors que exploitation waroon na commencer 2023 bokk na ci li gaa li tax gars yi di repousser calendrier bi tension politique yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu mm. génn muy benn beneen bi réew mi 2021 ba tey ñu ngi ci politique ñu ngi ci tension ñu ngi ci campagne électorale euh, euh, permanente est-ce que du président moo war a taxawaat comme ni ko Amadou Ba defee la dernière fois ne le vingt cinq dinañu sëgg bëre est-ce que du président moo war a euh, leeral jeu bi une bonne fois pour toutes pour chasser ces idées de rapport waaw exte que trop de euh, lumière dans cette matière ne nuit pas mais le président li mu waroon def def na ko ba pare lan la waroon def tout ce qui devait être pris fait en termes institutionnels tous les décrets qui devaient être pris fixation wu dat convocation élection def lépp mettre en place le la DGE le en mouvement préparer tout tout a été fait donc du point de vue institutionnel tout a été fait. mais ci politique il y a des manœuvres. du point de le président a choisi un candidat qu'il a adoubé taxaw ne man kii laa àndal kii mooy sama candidat kii laay jàppale pour mu nekk jàppale ko nekk ak moom ci. di defar directoire de campagne loxo président mi ngi ci directoire de campagne bi parce que Amadou Ba lépp lu muy def parce que aussi il est à la fois candidat mais aussi il est un militant discipliné dafa bokk benn Bokk Yaakaar dafa bokk APR APR dafa am président muy président Macky Sall donc lu muy def da koy def ak moom donc au plan politique aussi c'est clair maintenant d'accord naa euh, su amee débat yu mel nii euh, baax na Euh, président Macky Sall aussi su su suñ ci jotee mu wax li muy wax maa ngi dégg dégg naa sax ab nit bu naan ma <laughs> dama ko dégg barki démb dama ay ree la ma dem naan ci ginnaaw Marème fay moo taxaw naan nañu aéroport xam nga loolu yëpp tooñ beesu xam nga tooñ baaxul euh, euh, waa këram son frère qui ministre mu ngi ci campagne bi fu Amadou Ba dem mi ngi ci ginnaawam di wax di des donc franchement mënuñu ñëw tey Euh, bëgg ko féewale ak président de la république bëgg ko féewale ci biir këram yoonam nekku ci mu ngi toog fi mu toog ànd ak museem di def li ñuy def kenn gisu ko ci dara li ci ëpp sax ci lu muy def dañuy ñëw su dara xewee am su amee xew mu ñëw euh, tànk bi dafa gaaw dégg na galañ mu def li muy def ngal buñ ko ci dugal buñ ko ci wax wax bokkul deful dégg nga waxuma moom defuma ak moom mais bokkul deful dégg nga mbir mi suñu waxantee dëgg le 25 na ko Amadou Ba waxee ku bëgg dinga sëgg bëre ku bëggul di nga sëgg bëre ñun de suñu mbër la waroon def ak moom yëpp def nañ ko ñu ngi ci. pour mu taxaw xam nga aujourd'hui